c'est la commune de Nguyen qui a initié ce projet-là en collaboration avec le groupe Master. C'est l'organisation, c'est la commune qui a porté cette, organisation. c'est la, la, commune de Nguyen qui a invité ça en compagnie avec le groupe Master que le directeur de mu Il que que nous parce que nous dañu a lancé aussi si ay bon le groupe groupe groupement bi état sénégalais ay nit ñi fu le groupe au lieu ñun ñu koy def ay ay fo ak ay football ay ñun ak leen la comme l'informatique dafa nekk accès boo xam ne il faut que élèves yi de à bas âge

dem dem dem fele dem fan si l'ol aussi ma ma gërëm ministre bi parce que li yàgguñ ko ko invité di gërëm la maire de Ndiaganiao vraiment avec suñu euh, euh, suñu invitation jógee nañ déplacer peut-être vraiment pour ñu jàppale ñu di gërëm aussi la la la la presse te xamné li aussi ñun dañ ko bëgg vulgariser nekkul tay rek à cause de cette de cette maladie mais fuñ sañon tay dans toutes les écoles les CM mu am ben ben ben groupe bo xamné c'est bas âge dina leen mëna accompagner parce que le numérique c'est une c'est indispensable pour l'avenir de demain parce que mooy ku jàngu numérique rek dafa melni yow jàngoo IEB lolu tax vraiment ren tay ñu dinañ def pendant 10 jours pour pour pour accompagner du de mon staff c'est-à-dire les deux vice-présidents le conseil rural euh, le conseil municipal ak qui chargé de éducation mi Mme madame Thiam élément moteur parce que mon en collaboration directe avec le groupe master et li si am vraiment de grand groupe master une initiative bi ngeen vraiment di les féliciter et tey la commencer mais je crois que tàggoo googuñ dinañ commencé def la yaatu. pour le moment dañ dañ commencé parce que nous ñi dañ bëri ñu élèves pour initiative mais à partir de lundi de def de def par groupe de 12, par groupe de 12, par groupe de 12, ba deux

am suñu budget dañuy prévoir euh, dugal si informatique parce que defoon nañ ko ren sax à cause de parce que lu bët dañ si Covid bi mais ñun dinañ ut suñu parce que wax naa ko léegi état di nga ko dimbale di di di nga ko ñaan mais loxo da nga def sa loxo ba pare parce que man ma du ma ko caaxaane commune ngay ngeen xam nañ ne fii man éducation du ma ko éducation suñ priorité mooy éducation ak santé léegi sax si kanam di ngeen di ngay gis ndax may ne ko ñu dem dans tous les sites pour vraiment création d'école ñu de culture tout ça c'est dans le budget loolu lañ bëgg a donc loolu vraiment dinañ gën matériel bu doy waxuma la doy mais parents yi aussi comme ni ko am ni ko waxoon léegi da nga maa jàppale ma jàppale la waaw doxal sol xool moom Comme doxal commune a def lépp parce que les communes dañuy wax rek mais commune bi moyens yi presque bëriwul bu engouement bi comme Nguéniène taxut comme am recette yoo xam ne nañ koo wax parce que Nguéniène parce que benn côté la ñu am rek mooy côté maritime bi te Mbodiène foo ko seetee foo circulé amatul benn hôtel marché bi dañ ko feramoon recette bi mais nak ñu ngi góorgóorlu vraiment pour que même di population ñu mën ko respecté wa formation ma daal dinañ dinañ continuer pour pour pour def parce que ñun ci budget commune bi dinañ paré pour def ci loxo ci partenaires yi parce que ngay aussi je crois que nous on a beaucoup de partenaires dinañ ci paré def ci li ci dess ñu talox ministre bi parce que ministre bi ñaan ko aussi té dugal si bop amul njëriñ dañ koy ñaan ba pare mais balaa muy koy ñëw indi li ñuy jox ñun dañ si dugal suñu bopp suñu recette yoo xam ne lu mu tuuti tuuti dinañ ko si dugal suñu partenaire aussi ñu dinañ bind ay lettres bind ay doléances préalables pour que vraiment waxuma la ñëpp dinañ am mais les principaux euh, dëkk yi yi nekk si centre bi vraiment pour que am na foo demee Mbodiène am na centre d' informatique foo demee foo demee Nguéniène am na fa fajal amna fa xana kay pour renforcer nit ñi pour ci élèves yi pour yok ko seen doole mais ça amna nañ ay ay ay outils yo xamne ne daal les écoles CM ko le lycée amna fa mais xana kay pour yok moom moyens yi pour que vraiment et puis accentuer parce que buñu ko dañ ko def non rek mais mais euh, taxu ko woon mu mu ñu vulgariser ko comme nit ñi ko ki ki mëna a diggee jël ko à bas âge à partir de ci CM2 ba ba ba terminal am ko waxon légui ñun on forme pas que les élèves amna ñoo xamne tay enseignant yo xamne ne ñu informatique té légui tout est informatique légui enseignement enseignant aussi mën nañ fi ñëw aussi di initier wu ça ça va dépendre ami jom ak de ak de ak de directeur de kii donc loolu la fas nañ si yéene et puis nous on lance un appel à tout le monde aux, aux parents d'élèves parce que outil informatique sert tout parce que légui parce que foo amee 100000 francs di nga am le le minimum ben machine ñep ñëmu ñu ko am nak mais ndank ndank mo japp golo ci ñay nekku ne man may def lepp mais keneen fu ñuy def la même chose que man donc loolu laa bëgg vraiment.